kon taalibul xaq kuy wuti dëgg te alxaqu huwa allahu huwa allahu huwa alxaqu dëgg mooy yàlla yàllaay dëgg kon ku am taalibe am nga yàlla ku am yàlla loo ñàkk mën nga ko war ngoo ko mën a moom loolu mooy araf bu njëkk bi de kon dëgg taalibe mooy dëgg ku mu am dëgg ku am taalibe am nga yàlla ku ñàkk taalibe ñàkk nga yàlla ku ñàkk yàlla perte nga àdduna ak àllaxira kon boo amee taalube bi li nga xam ne codé nañ ko ñu taxañ ko ci biir taa boobu léegi kon ñaareelu araf ba lan lay doon taxa xaa bi mooy xaa di ila siraatu mustaqim ku am yàlla tabaraka dégg nga tege ci siraatul mustaqim ku tege ci siraatul mustaqim doo tuur deret doo wor doo wur doo wax lu dul dëgg loolu moo loolu moo di loolu moo di ak loolu moo di ak siraatu mustaqim li nga xam ne yàllaa ñu wax ne yaa bani aadama ana laa ta'budu seytaani innahu lakum aduwwun mubin fa'buduuni haazaa siraatu mustaqim yow doomu aadama bul topp seytaane ndax seen noon la di seen la li nga xam ne moom moom la lay woo teggul ci siraatu mustaqim siraatu mustaqim mooy tax a mucc àdduna mooy tax a mucc alaaxira te yàlla ne lasina lasina kafaroo wa kasaboo bi ayati ayatina wastakbaro anha laa tufatahu lahum abwaaba samay wala yadxuluuna a ata yàlli ñu jamalu fi saanul xiyaam mu ne yéen ñi gëm yàlla na ngeen moytandiku rëy rëylu nañ moytandiku rëy rëylu lasina kasaboo lasina kasaboo bi ayatina wastakbaro laatu laa tufatahu lahum abwaaba samay wala a aljanna ñi nga xam ne dañu weddi ay yàlla yi bu yàlla ne yàlla nee walla yoon yont mi nee na ñu rëy rëylu wala ñu am ñu am ku gën a rëy ba soxlu kaddu yàlla wastak baro anna ñu dal di continuer rëy rëylu ay wala wali soona suñu borom nee na bés bu dee dig ba jotee ba ruuy yàlla dogal mu soxla ko sëriñ bi lay jox ngay naan ay saawara wala ay sungu fa kireen mënu ca dara docteur bi lay piqûre mënu ca dara foo man di dem du te mën dara ba suñu borom tabaaraka jël ruuba ne laa fattu fatahu lahum abwaaba samaay ñii day ruu yii day dañoo réyoon dëddu kaddu yàlla suuxlu ko ba mu tee leen a tegu ci siraatul mustaqim kon ñii de duñ dugg ajjana digal malaaka yi mu ne buñ leen ubbil bunti ajjana ajjana ndax duñ bugg ajana sunu borom ne xanaa